Euh, tabarakallahu ñu daal di ñëw nag kon ci ñetteelu xaaj bi te mooy xaaj bi ci mujj Oustaz Alioune jaajëfal la bu baax jaajëfal euh, sponsor yooyu comme ni ko daan defee rek sëñ Mbàkke mm-hmm. ñu ñaanal leen baax a baax a baax kon ñu ci laaj tontu bi incha allah mm-hmm. Oustaz ki jëkk jaar ci buum gi tey muy sunu mbokk mu baax mu ne suñu cousin la nekk ca euh, Morala mm-hmm. Moussa siis Oustaz Mora euh, euh, kii Moussa nee na. Mhm. ginnaaw mu waa dëkk baak waa ñoom nee na njàngum alquran ci armeel la bëgg a laaj. Mhm. ndax dañ ni am bëgg a dagan ñiir mu bëggoon ci xam lu ko leer. bismillahi rahmaani rahim. subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa. innaka innaka anta al alimul hakim. ci masalay xilaaf yi la bokk. Mhm. ñenn ñene kenn du jàng ci ay armeel ndax yonent bi moo ne laa laa taaxusu buyutukum xubura aw kama xaala ñenn ñene ah moom da jàng na alxuraan ca armeel ya ndax kero ba diw faatoo mu laajte ñu ne ko rob nan ko dafa ànd ak gaañe ba tiim ko ca fañ ko denc jullee ko te boroom xam-xam ya ca masa bu Shaafi ak Hanbal dañoo wax ne jullee néew daa am faatiha kon su boobaa jàng na fa alxuraan. dëgg la loolu la jëleen borom xam-xam yax. dëgg la wallahu taala alam wa shukran. d'accord macha allah. Mm. macha allah ah, loolu leer na. dëgg la alhamdulilah. masalam xilaaf nag mu wàccee ci ci pénc. Mm. maanaam du jar werante. Mm. lay ndeysaan du bu werante kenn yëkk ci dënnam. waaw mbaa génn mbaram ji ci diini ji. <laughs> bu génn takfir kenn waaw. loolu rek la. macha allah mu koy am na solo oustaz euh, donte léeg-léeg nga gis nag ñoo xam ne mën nañoo ñëw ba ci armée yi ñu yorub téere di jàng. Mhm. wala yu demee noonu xanaa kon de day yóbbaale laaju ki doon wax julli ay armée kon kon kenn du fa julli de xanaa. waaw deesu du deesu fa julli. Mhm. ndax dañoo jàpp ne mën naa ñàkk set. Mhm. te comme am na bërëbu jullikaay bu ci du jàkka. jullee fay fëre waaye daal yonent moom jullee na fam néew ci biir jàkka ja ci mm. biir armeel ya jullee na fam néew waaw ginnaaw jullee na fam néew nag day daal di indi kon ah kon kay danañ fa julli mm. te te ko jullee néew jàng faate waaw mm. kon ñaar yëpp da koy mel ni ku boole wàll ci atte bi euh, comme jullee na fa mu néew ñu ne kon diis na fa julli dëgg la comme jullee na fa mu néew jàng na faate ñu ne kon dañu fa jàngal xoraan loolu la borom xam-xam yee wax borom xam-xam yee wax le wallahu taala alam wa shukran jërëjëf des na kat ñaar benn laaj ci Mbàkke. waaw mu ni naka la ñuy sàbbaxale ko ni ci julli si jamucc jërëjëf ci laaj bi ku ne ci julli bu yokkee mbaa mu wàññi dañ koy wax subhaanallah bu dee aw góor bu dee aw jigéen ñu fottasu waaw at tasfiqu lin nisaa'i wa tasbiixu li rijaali kon ku ku jigéen joo xam ne dañ leen jiite ki leen jiite jamañ dañuy fottasu mu xam ne jamaj na bu dee góor ñu ne ko subhaanallah mais sax ci ci ci côté ja euh, sabal Mbàkke hmm. euh, léeg-léeg jàkk ji imaam def benn jumtu ba ndaw rek ñëpp ànd di ko wax di ko wax ne wala ñu ko wax rek wala dañ koy waxee ndànk wala jàkk ji pour riir na ku ne subhaanallah subhaanallah fu leen waay dafa yuuxoo wala waaw xam nga jàkk dañ koy organiser loolu hmm. ahlaami wa nuha daa am fu ñu war a taxaw hmm. waaye du tàgg ne fu neex waaye taxaw dëgg la kii def fu neex waaye taxaw nag léeg-léeg sax mu sàbbal ilimaan te jama jub mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la de léeg-léeg imaam jama ñëpp sàbbaalandoo ko mu jaxasoo mm-hmm. ndax jàkk jëy réerandoo subhanallah subhanallah am na ñooñ sax duñu wax subhanallah ju du kii dañ koy gëdd ah, maanaam façon bi ñu wax subhanallah ji dañ koy gëdd ko defee loolu mën naa jaxasi imaam nam daan def xabla mm. sabal gi day réer nga xam ne day réer daana tàqali ko suuf continuer hmm. daana tàqali ko suuf toog hmm. bu defee safaan bi tey rek jàq ji day tàmbale jaaxle ah, maanaam kur moo tax ulal ahlaam moo nuhaa ñoo war a taxaw ci ginnaaw mat juróom benn wala yooyu hmm. ñoom ñoo koy sabbal ci ñoom lay jël ku ko wuutu nangam nangam waaye bu def fu neex waaye taxaw am na ko xam ne ki mën naa taxaw foo xam ne moom bu imaam jama jeet la koy xool doom dëgg la xamu ci dara mu naan abasa wa tawalla ma koy xool rek <laughs> lam ci mujj mooy ne ko da ngaa sob <laughs> fi <laughs> ñetteelu laajam mu ñeen génn góor a ngi dem maanaam faatu ndeysaan bàyyi fi ñeenti taaw yu bokkul ndey ñu fas yéene ko miraas ndax kenn ko ndax kenn ko absenté rek mën naa tax du miraas hmm. jërëjëf miraas di mbirum sunu borom la subhaanahu wa ñeenti taaw kenn ëppul sañ-sañ morom ja ci miraas bu fekkee ñeent lañu fu ñett ñi teewee war nañoo mën a miraas bàyyil cër ka ab sante dëgg la bu déggoo waaw dañoo war a déggoo mooy gannaaw suñu borom moo santaane yuusikum law fi awlaadikum mm-hmm. waaw dañu war bu fekkee am na kenn ko ab ñu miiras bàyyil ko fa cëram bu ñëw ñu def ko ñu jox ko procès verbal bi defal ko contrat léegi signature ñu ko def. mu leer nañ jamono ñooy. Mm-hmm. ku bëgg aw ay musiba nag su absenté day ñëw jéem a jaxase yëf ak ñoom seen yooyu fitna jooju baaxul te kenn du ko defal sa baay. Mm-hmm. waaw kenn du kenn du indil sa baay ñol-ñoli ginnaaw. Mm-hmm. waaw waaw déedéet sa salin mm. addi ji gën a rëy nii du ko defal baayam. Mm. mooy jubóog ay mbokk ay ay say rakk ba sa ginnaaw baay. waaye bàyyi woon la ginnaaw ñol-ñol ji tàmbali nga rëkk ko dóor a ko yoxoo hmm. loolu baaxul ci bàyyi baaxul ci ki koy def allah waaam su ko doon ci laaju maam solo même sax affaire maam yi nga xamante ne daan gor ay tool <laughs> ah, am ay tool yu bëree bëri xam boo dee bu dee bàyyi fi ay doom ñoom xam affaire santé mala boo boo lislaam tax ko demee noonu ba boo nii jàngale ji am ci rajo yi tax loolu yaar da nga daan dégg fóore ci dëkk sàngam dem doo ko fa fekk ba la mun a tool yi mujj daal mu nekk loo xamante ne moom rek yaay bay moom la daal la ca nekk ci ñàkk xam ne yàlla mën na ko jéggale la ca teg ci xam nag suñu borom moom dana jàpp ñi ko def yàlla nañu jéggal jéggal leen amin ya rabbal alamin amin amin ah. rabbana laa tuwaaxisna in nasiina aw jeex na <laughs> wallaay doy na waar xam naa miraas de moom daa mel ni sax laaj bi ñëw na fi ay yoon waaye oustaz miraas am na am na am na jafe-jafe ci réew mi lool waaw miraas moom am nañ fi am nañ fi problème mu miraas de euh, xam nga noonu hmm. dafay feeñal suñu yëf ci wàllu googu ci lu ñu tuddee laïcité waaw gis nga julli am na problème waaw woor am na problème hmm, hmm. aj màkk am na problème miraas am problème avec es yi am problème fase yee waaw <laughs> mu ngoog sëy yi am problème mm-hmm. parce que danoo nekk ay jullit yoo xam ne du nu jàngal suñu diine ci suñu école yi waaw tubaab la ñu jàngal ban man koo lakk ku am chance dellu ci diine ji mm-hmm. loo ca for baax na mm-hmm. loolu kër loolu nag penc bu ko mel sëñ Mbàkke lu mel ni miraas bon da nga jàpp ne séddoo la lu néew ngay gis ku ñëw ne sunu papa daa faatu sunu tànt yaa ngi nii danoo bëgg a dox ci charia mm-hmm. doo fa am quinze minutes mm-hmm. wallaahi quinze minutes mu leer nañ ah, sunu borom wax na ko ci alxuraan ba noppi noppi ca def na ko barem mm-hmm. waaye ki bëgg la jël rek day la jël rek dëgg la bëgg la jël day la jël rek dëgg la léeg-léeg miraas mi am pànk mu jigéen mu ca nekk kenn du ko mën a miraas ndax moom geetur <laughs> ba wow koŋ koŋ nga xam ne moom xamul lu xew tam yi ragal ko xamul lu xew yaayam ragal ko xamul li xew mhm. mu bëgg li baayam bàyyi mu am ci la ko doy moom te doyutoon baayam ba ëllëg loolu possible sax waaw ah mhm. mba mbaa mbaa mbaa mbaa nga nekk góor oustaz di di ko sëyal euh, dem dem ba mënatul nga nga ngay récupérer kayiti kër yeeg alal yeeg carte banque yeeg hmm. lu wiiri lépp ci sa ci sa ci sa turu bopp mhm. ah wut te nag loolu ñaar ku man mooy xëy il faut nga am branlo. bis booy sukkuraat nag. Ah. <laughs> doyal sëkk ci yi nga defoon. ndax dañ la koy wan ah. rabbi law laa axartani ilaa ajalin qarib hmm. fa asaddaq yàlla teg ma fee bàyyi ma corrigé ma corrigé miraas mi <laughs> yàlla na ka la wees na wees na wees na lu yomb la di mm-hmm. waaye nit ñi alal dañ ko teg seen bakkan hmm. waaw na am rek hmm. wa taakuluna turaasa aklan lamma hmm. wa tuhibbuna al maala hubban jamma kala shukran ci laaj bi allahu akbar Moussa bi doy na waar de. Moussa Ciss Moussa Ciss bi nga bokk bi nga bokk doy na waar de. waaw ah, daa mel ne miraas nag léegi war naa gën a yomb oustaz bu fekkente ne léegi bind ak calcul ak euh, logiciel yi. miraas mathématique yeewute geeg yëpp war naa am bu fekkonte ne wóolonte nañ suñ biir te jox suñ bopp diine defe naa miraas wër ta mën a jafe. déedéet wax naa la quinze minutes. Hmm. ak mën a toll quinze minutes mën na koo comme soo ñëwee yow. waaw. bu fekkee xaymaal nañ la li waa ji bàyyi lépp. Hmm. xaymaal nañ la ko hmm. bi nga ñëwee xayma nañ kër gi xayma nañ teere yi xayma nañ oto bi la ca banque ba nangam nangam lépp a gi nii hmm. moom daal bàyyi na cent trente six millions hmm. point nga ne bor yi ñu ne la bor yi génn nañ ko diw ak ko amee loon moo génn na fee ñi ko ameel ñu naa ñu nag moom xamuñu leen xamuñu ci dara loolu du ko yàq ndax ndax mayoon na ci alalam sañ mbakk si la bu wane ginnaaw ñu ne waaw noon na nañ may sëñ si la vingt millions su fi jógee ñu ne vingt million multiplié par trois égal nangam bu tollee ni alal ji ñu ne ah kon li may suñ mbakki ëpp na nañ ko def dix waxtaan ci ba wa man xaafa min fa man xaafa min moo sin janafat rek la ko ba mu ne coog dégg nga léegi li ci des nag moo miraaskat bi daat ne ñaata soxna la bàyyi ñaata doom la bàyyi ñan ñoo ciy góor ñan ñoo ciy jigéen ndax yaayam a ngi fi ndax papa ma ngi fi miraas ba jeex na mm-hmm. buñ xasee wax ne góor doom ju góor la bàyyi mm-hmm. rakk bokkatut mm-hmm. mag bokkatut mag bokkatut waaw tàntaa gi ne yaa kenn bokkatul rakk ju góor rakk ju bokk ndey ak bàyyi bokkatut ju bokk ak bàyyi bokkatut ju bokk ak ndey bokkatut doom ju góor a fi ñëw ñoom ñëpp génn leen miraas bi daf leen di muur doom ju jigéen la ci la ñuy seet ba xam ñee ku ci ñëw dëgg la loolu yomb na vingt minutes. tey ku ne mais nag oustaz vingt minutes yi mooy miraas mi nga wax nga xam ne dañuy jaay. dañoo jaay alal ji wala dañ koo xayma ci xaalis. waaw waaye bu fekkee miraas moo xam ne kër gi léegi dañoo bëgg a xool ba xam Aline Mbaye ak doomi ndeyam ñooy moom appartement bi euh, Assane Thioune ak doomi baayam ñooy moom kër gële nga xamante ne daanaka. su boobaa mi rësatuñu. xam nga. Euh, maanaam tey boo demee tey fu mel ne Jurbel nañ ma baal. da ngay ñëw ci kër fekk ñu xaaj ko nga xamante ne ay miir yu xaaj kër yeeg yu kenn xamut nga xamante ne kër gi gi fasuñ ko yéenee jaay mais ñii dañu doon ruq bi ñii doon ruq bi ñu ne néeg bii diwa ko moom diwa moom appartement bi loolu itam xeetu miraas la wala lan la. kay moom su fekkee miraas rek la. sentiment day dàqu. nga xam ne dañuy jaay kër gi kon kër gi dañ ko war a jaay bi yàlla def ne ko miraas da nga ma cee doyut moo ko wax mu ne yoon yàlla nee na doyu ma ko ci miraas moo ci doyu ma ko ci azaka ñu ne ko lu xew mu ne day mbirum alal santiment koy doxal xam nga léeg-léeg nga dégg ñu ne tàntay xale yi amul fu mu dëkk. léegi nag miraas mu xamul hmm. xale yi fu mu dëkk. Hmm. yu mel noonu xaw a am. Hmm. ci kër gi. waaw léegi moom dafa war a fay lu yas bu ñu demee dañ ko ciy wala war a génn. xam nga léegi. waaw l'islam du du adopté noo koy adopté. waaw. léegi kii daal ne ci kër gi miraas daa jot moom boroom kër gi daa faatu dañ koy miraas kon nag du wuti fu mu dëkk <laughs> waaw nag kon lam fa ah, ah, léegi loolu yëf yi biñ miraasagut oustaz Alioune mhm. biñ mi lislaam moom xamul buñ miraasagut mhm. moom mooy li nga xam waa ji faatu na mhm. denc nañ ko ñëw nañ kër gi miraas nañ ko ku ne dem waaw lijjanti ba miraas ñëwagut nag la daan wax ne bàyyi fi dundub at ilal xawli waaye comme léegi miraas am na buñ robee ba ñëw ñu miraas d'accord <laughs> am na solo de. Ah. am na solo lool seen. en tout cas li nga xam ne l'islam ñun noo koy adopté. maanaam ñun ko bëgg <laughs> ji kenn ku nekk boo demee dañ koy jéem a. xëcc ko mu ñëwal la voilà comme ñoom c'est-à-dire c'est-à-dire moo tax sax daa mel ne mm-hmm. laaj yi ci miraas day bari. waaw ñëw laaj oustaz Mbaye mu defal la fadwa nga dem laaj oustaz Alioune mu defal la fadwa nga dem ca Mamar Seck imam mu defal la fadwa maanaam <laughs> ah. kenn ku ne day bëgg bi ko ci gën a arrangé waa ji moom ko atte jabar ja dafa jóg ne ma xamoo dara tas jóg sëy rek nga fi mu nekk waaw oustaz nag wàllu jabar nag moom man nay tey nag <laughs> waaw jabar moom moo taxit <laughs> sëñ Cheikh nee na ñokk tii ma ne ma dara nga xamul ah. waaw ëpp na tas jabar yi jàmbur ah. sëñ ko di sëñ Cheikh nee bi waaj ñëwee ci góor gi di ko wax soxnaam si <laughs> ay jafe-jafe góor gi wàccee téere boo xam ne nee na fël fël maanaam pënd bi ci nekk bi mu ko dóoree ci suuf nee na ubbi ko ne ko Malick nee na sëy bi tas na <laughs> nee na ngóor da ko ne ko amoo fi bu maaseeg man <laughs> daa mel ne Malick moom. <laughs> téere bi daal dafa yàgg daal téere bi dafa maa mag man naa masala mi nekku ci waaye waaye masala yéen léeg-léeg nit ñi di ko laaj di ko tawee rek. waaw dañ ko jékki-jékki rek waaw sëñ Mbacke man dama mënum laaj nga wax ma ne ko waaw bu fekkee nangam nag nga ne waaw bu fekkee nag li feeg jubbu ko doo dégg merci. li feeg jubbu ko doo dégg merci. moom kay dañ lay laaj laaj fukki ustaas ak juróom-ñaar. dëgg la kenn lañ ci war a tànn. waaye li nga wax ni Mbacke aw saas hmm. euh, dëj bu ñëwee lañ war a def rek mooy lijjanti lijjanti ah, lijjanti waaye dañ ñëw hmm. dañ fa nekk di def détail nekk ci dëj ba di waxtaan di wax hmm. leneen di dugg ci détail togg yàpp togg ginaar moom mbokk ma ne ci émission bi damaa laajoon irando benn question mën na ko doyloon naa la ma wax wasalaam nañ dem ndeysaan ndeysaan tra euh, mel ne oustaz oustaz fi may daanele mooy miraas nanguwu ñoo jaay maanaam jaay kër gi ab jàmbur jënd ko daa mel ne loolu bakkan lañ ci teg. day mujj ñu koy ñu koy tegoo daal naan Oustaz Mbaye yaay teggi diw yaay jox diw 3 millions yaay jox diw 500000 ci koo xamante ne nii moom euh, loolu mënagu koo dajale day mujjaat nekkaat ay contrainte ci biir mbokk gi yoo xam ne ay jafe-jafe rek lay indi. Euh, comme comme am na keneen ko laaj ci biir. waaw ba ba ñu waaw baax <laughs> dëgg la de d'accord <laughs> dëgg la de. incha allah. Mhm. Euh, jërëjëf jërëjëf Moussa Ciss ki ci topp Mbacke mooy suñu mbokk mi Ibrahima Faye Allemagne. Allemagne mhm. ñu jaajëfal ko baax moom Cheikh Ibrahima Oustaz di wootee ci Allemagne di fidèle auditeur jotaay bi. Mhm. Ibrahima nee na ndax aj Màkka dafa am ay at. maanaam at da ciy compter daal ñu ne balaa nit a aji dafa war a am nangami at. jërëjëf ci laaj bi am na solo. Hmm. am na at kay mooy albuluux. Hmm. nit ki day nekk jullit nekk ku mat maanaam am masor hmm. la ca tege mooy mu am ak wér. am ay àndandoo yu wóor. loolu def bokk ci euh, ponk yi nga xam ne dañ ko ciy bëgg suruut ya bokk. Euh, léegi nag ak ndaw lañ gën a bëgg ci aj màkk ak mag ndax la lañ fay def ci aj ay màggat a ngi dem mënuñu koo def dañuy dem rek dellusi ndeysaan waaw am na màggat yoo xam ne bu ñu demee noogay mii fi ne boo ko yóbboon màkk waaw am na yoo xam ne mënu ko fa mm-hmm. waaw ndax fi ne màggat na mm. dox yu sori yaak ñoom seen yooyu yéeg baag wàcc ba <laughs> waaw sànni jam rek dellusiwaat mënu ko day mujj toog mun naa rek tàllali tànkam naan yóbbaale ma sama jamra yi ndeysaan donc bëgg nañ ci daal ak ndaw ku toll ci ndaw nga def ko ñoom Mouhamadou Lamine Sène ma la ci ndóoma rek ñoom seen ñooñu mm-hmm. seen aj ga ak euh, ak directeur Senelec mm-hmm. euh, seen aj ga xam nañ ne ndaw mooy aj ay ñooñu génération bu am solo la woon ci aj ci aj googu mm-hmm. xam nañ ne ndaw mooy aj mm-hmm. donc la waa bëgg xam ne kon ndaw gi maam am na ci solo dëgg la mag yi gi nag ah du wax ne mag ñëpp duñ aji mm-hmm. waaye daal am na ci ñooñ def ko mënuñu ko mënuñu ko waaw wa shukran ci laaj mbam solo bi macha allah am na solo oustaz jërëjëf beneen bi mu ci teg nee na ki nga xam ne dafa aj màkka yan jikko la war a am waaw bu ñibbisee jërëjëf mm. bu ñibbisee ajam nga soppi ko mm. bu siisoon na dañ bu soxoroon na dañ bu bëri woon tiitar na dañ bu rëyoon na dañ bu bañoon jullit yi na dañ mm-hmm. bu sori woon alxuraan na dañ mm-hmm. na lépp maanaam aj màkk boo demee ba ñëw mm-hmm. ba ngay armale mm. ci nga yëg ni yaa quelque chose ba ngay armal mm. summi si yëre yëpp mm. sol yëre yu bees ci ngay xam ni yaa quelque chose boo dee jigéen boo fa muuroo boo ñëwee bul bul muriw waaw kay mu ne suñu rajo bi nag wax dëgg yàlla gis naa ci ay jox yoo moom tubaarkal waaw daal bu ñëwee Adja Ndeye Khady waaw Adja Issa Issa Adja mii day Marème Ndiaye ah tubaarkal yow ñoom Taal waaw ñun ñëpp wax yàlla macha allah ak si mureeku non ñëpp daal macha allah ñun kay même góor ñi tax ñu dem ba ñëw ba ñëwee ba léegi ay alaaji lañ daal laaj <laughs> ay alaaji lañ xam naa bu Assane Thioune demee ba ñëw moom it moom sax nekk na alaaji ba noppi waaye mu gën a kii <laughs> ndeysaan ndeysaan ak directeur tam waaw Baye Mar waaw Baye Mar waaw moom daanaka du jële la waaw ajam nga ndeysaan ba léegi da koy nettali ba léegi da koy nettali 2012 la ndeysaan en 2012 waaw maa ngi élément bi fii daje nañ fa mun naa ndeysaan ndeysaan macha allah Mm-hmm. est-ce que. wa shukran. màkk noonu la. Mm-hmm. Mm-hmm. tubarkàlla léeg-léeg nag oustaz nga gis koo xam ne mën na lay nettali màkka miin ko lool ay yooni yooni yoon waaye euh, léeg-léeg itam du def benn jeexital. da doon dem màkk ajutoon. waaye léeg-léeg itam oustaz gis ku toll ci aj ragal a aji man gis ay xale. yoo xam ne am nañ moyen mais dañ naan la comme comme mënagumaa bàyyi nangam ak nangam. Mm, damaa bëgg bàyyi ba ba nekk mag. nga xam ne jàpp na ne boo ajee ba ñëw daal. waratoo mën a dund ni nga doon dundee da bàyyi ba ci kanam. seetaane liñ tiye mm. ndax naan leen hmm. da nga dund ba ci kanam hmm. ndekete ren ngay faatu laa ilaha illallah wu yaay booy xawla la <laughs> waaw moom sax ñun naka la ñu bëgg àjjana sax te koo ci wax diere mu mu faxas ah, daal yow itam nag bàyyi loolu hmm. ah Cheikh kay dañ Cheikh kay mag ña dañoo tàllal seen loxo ñoom ñëpp muy leen yàlla na ngeen dee ñëpp bank mu ne yàlla ngeen dem aljanna ñëpp ne amin mu ne ah contradiction am na wallaay wallaay ci ma wallaay mais dund dund gu dund gu yàgg te neex rek mën naa doon avance u àjjana aussi noonu xajane nañ ci kay waaw yooyu léegi comme tëdd la daal nañ ko tëdd fii rek xajane nañ ci kay moom kay ñi nga xam ne aj màkk gi dañuy jàpp ne waraguñoo mën a dem rek ndax buñ ñëwee day compliqué ci ñoom ndax itam daa mel ne askan weer société bi itam oustaz dañ dul bàyyi dara ndax fi ne seytaane koy def ci waaw bu euh, oustaz mbay xëyee fële ca CDE hmm. euh, gannaaw ab oustaz la am na nu mu doon demee bu nuyoo reetaan ci kaw sax ñu ne ah oustaz nangam nga xam ne daa war a nekk malaayika ki aji màkk ba ñëw bi day jàpp ne moom pareegut pour doon malaaka nag nit a doon moo tax day bàyyi ba nekk mat ba bàyyi liggéey bàyyi lépp aji ñëw na solo lool jërëjëf macha allah beneen laaj bi mu ci teg oustaz nee na bëgg na nga wax ko barke eh, nee na daal lan mooy tax am barke dëgg-dëgg eh, mhm. sunu borom ndax ca suuratu duxaan hmm. inna anzalnaahu fii laylatin mubaaraka hmm. layla mubaaraka hmm. guddi gu barkeel lan mooy barke mooy loo xam ne ku mu topp loo yor day sakkan wallaay mu topp loo yor day sakkan barke mooy ne ci alal nit ki di ci faj soxlam yëpp te di ci jaamu yàlla ci barke mooy ne ci alal nit ci di faj soxlam yépp te di ci jaamu yàlla mm-hmm. Mm-hmm. barke mooy ne ci nit ba fu mu yendu mel ni tabaski wallaay mm-hmm. wallaay ndeysaan ci barke yi nit nit ba nga xam ne am mbubbam ku ko amoon defe ne am nga lu dul jeex moom la yàlla defoon ci mbubbam yuusufa ma ishabu bi xamisi haada sama mbubb mii hmm. yët leen ko sama bàyyi xëpp leen ko ca xar kanam ba bu kataraagee dana wér bu amee leen dana wér yaati basiira ya allah ngeen indil ma ko hmm. ndeysaan boobu ma nga ca Égypte kële nga ca Kanaan hmm. loolay barke waaw moom la sëñ boo xoon ca innamal amalu binniyaati mu ne ko wa niyyati tabarruk bi saadaati ci uqal bu kaw ci tàmm yëpp ndeysaan waaw lu am solo la sax dafa mel nag loolu dafa commencé maanaam dañ koo démystifier ba fi ne nii daanaka gëm lootuñ ko xale yi maanaam sàkku barke ci say wajur moo tax muy dem sàkku barke ci sa maître bi lay jàngal moo tax mu barke yaa ngi dem Oustaz Ali damay ah, dëgg la moo tax liggéey ba yor ba yëy këyit yor diplôme mënoo liggéey mhm. ngay mer rek ak ku xulu très bien ñàkk barke la loolu lépp ñàkk barke la bokk wala Mbacke ku muy may ku mel ne Mbacke si la jàng ba sëñam gërëm ko mu del si ñëw nga gis ko mu am teraanga am nga defee pexe ko may. la bokk la barke ca la bokk pexe mayul dara. ba wut barke ci sa borom kër. sa yaay xool ne la gërëm naa la. Hmm. Hmm. ku xamul li xew. tuutiwul de. ku ko xeeb xew. yooyu nag yooyu nag wala sa yaay xool ne la maa la jëppi. koo xool xam ku ko xeeb xamul li xew. Hmm. laa ilaha illa allah barke ah barke gis nga te te Occident hmm. dañ def mel dañoo a wàll oustaz hmm. ku ci am sa mag bu ret boo retraité nga yóbbu ko maison de retraite sànni càlla hmm. ba ñuy jooy rek waaw ah dañuy jooy ah, moo tax duñ duñ moo tax duñ lu dañu am barke sànni sa yaay ba weer ma ba semaine at ba at nga an semaine wallaay seen meer kay nga koy gis mais ñoom it oustaz seen yaay dañ leen sànni woon de ndax boo nekkee liir itam duñ leen nàmpal duñ leen boot duñ leen uuf duñ bàcc laytaay duñ leen satal dañuy jël rek eh, eh, dénk leen am nunus dem toog ku ci màggatin ñu dénkaane la am lu gone daan fooye ci dëkk bi waaw nu mu tuddoon doomi tubaab doomi tubaab waaw doomi tubaab <laughs> Mm-hmm. doomi tubaab lañ ko tudde waaw kenn du ko nangoo moom ci kër kenn du ko nangoo moom doomi tubaab kenn du ko nangoo jur waaw moom itam bu màggee kenn du nangu mu jur la daa mel ne li ñu leble li ñu leen di fay ñoom yàlla xam ne daa tuuti non. Ah. système système bi war nañu ko xoolaat de. Mm-hmm. Ah, waaw waaw. loolu mooy loolu Ousmane Sonko déggee kontaan. <laughs> Ah. système bi war nañu ko. ndeysaan est-ce que loolu moo jur appartement yi nga ne léegi couple bu ne Mbàkke si day takk soxnaam. Mm. wuti wuti appartement. Mm-hmm. bàyyi daa am fu ñu dox jëm foo xam ne fii. Mm. buñ dëpp buñ faagee day métti lool. du baax de mhm. du baax de loolu moo fi bëgg a jëlee mhm. barkeek nangam nangam mhm. barkeelu fi la xale jaar. dëgg lépp bëgg ko fee jëlee. wallaay daal di jàpp nag nit ñi ñëpp nag. ñëpp a yem barke amu fi. ndeysaan waaw amu fi. <laughs> ah li ci li ci neex de léegi nag oustaz mooy daa mel ne. Hmm. am xaalis mooy am barke daal. mooy nit ku yàlla baaxal la ma doon wax suñu xarit bële ci <laughs> RFM ñu ngi koy nuyu euh, nit ku yàlla baaxal daal oustaz daa mel ne mooy mooy mooy mooy mooy daal ku am alal ku yàlla ku yàlla yàkkal waaw kooku kooku mooy ku am barke itam nga xam ne moom daal ginnaaw am na alal am na barke alal mooy barke wala xam nga sunu borom am na ci alxuraan mm-hmm. nasran mm-hmm. am na nasran aziza waaw mm-hmm. nasran jeey dong waaw mooy waaju daa am may barke ni ko ci nasran aziza nag mooy ndimbalu ànd ak barke ndeysaan allahu akbar waaw. dimbalaa ak santalin gis koo xam ne kii lim yor lu tuuti la. Mhm. waaye mu nga ciy dund. Mhm. di lu ay bokkam di ci def lépp. dëgg tuuti lay yor. dëgg la gis koo xam ne kii lim yor du jeex du xaaj. Mhm. waaye comme barki nekku ci. danaan fuuf. naan fuuf lu lay lu lay barke. lu am solo la. allahu akbar. waaw oustaz oustaz oustaz lii xaw ma kañ la waaye war nañ ko mën a wutal dem de. waaw del noté del noté rek dégg nga. waaw maa ngi def ci def ci frigo bi. <laughs> <laughs> mais xam nga am bi sëñ maa ngi di wax dëgg yàlla dara nga doon neex tarbiye sa papa tarbiye sa sëriñ tarbiye sa say kilifa ah yooyu lépp da da nga am looy wut mais doob jaam. wallaay jàppewuñu la jaam. Mm-hmm. tarbiye sa jëkkër. Ah, bu ko bu ko féministe yi déggee defee ne yow. Mm. Ah, jaam nga jaam nga bëgg jënd. fekk na du mbiru jaam. saxaaba yi loolu leen may barke bañ am. dëgg la de dëgg la de. boo yombal ñoo leen di tudd. ndeysaan. si ne jigéen jox wax moo ko poñ mu ak ah, yéen di yéen tam hmm. du ñun dong rek de hmm. loolu tam ah, waaw mais est-ce que loolu du dëgg est-ce que ñëpp war a moo ko poñ waaw kenn wax ni barke dafa dafa day wut barke hmm. ah, yow mi mokkul poñ wutoo ko waaw loolu mooy bu looloo leen wutale seulement nag war toppante bànneex toppante ko war naa mën a nekk bu njëkk boo amee dong nii du ko jàngal suñu mbokk si di ko jàngal yaay ma jékki-jékki wommatam fam xar moo xam ne ah allahu akbar mu ñëw ne ko yokk jàngalekat bi ne koy bindal ko kiis noonu lañ koy tuddee barke tàmbali laa topp oh. waaw noonu la yaay daan def démb mm-hmm. noonu la bàyyi daan def mm-hmm. même jàngalekat yii mm-hmm. waaw ñi daan ñi jàngale ci kaw gi loolu xewee gu fa ba léegi dëgg la da di seet si kiy jàngal sa doom ŋàbb fa sa tuuti soow ak tuuti suukar wala wala warga léeg-léeg ŋàbb sa ganaar wala ay nen ñëw ne ko mbaa mbaa mbaa mbaa mi ngi góorgóorlu mhm. mu ne waaw nga jox ko ko dem ndeysaan moom koy même su xamiwul sa doom mm. loolu barke boobu dafay jokk ci ci ci doom ji dëgg la Oustaz mm. ndax xam nga ne mbonaat amuti ween déedéet day xool doom ji ba mu suur barke ngóob mm. mm-hmm. Oustaz dama bëgg nga ñaanal sama yaay ndeysaan ñaanal ñaanal ma yàlla na ngërëm sa yaay. amin amin suuf ci yal na ko yàlla may àjjana. waaw te may na ko sunu yaay. Mm. macha allah wallaay yëpp dëgg la. incha allah moom koy moom koy moom koy oustaz xam naa li ngay wax léegi ci yaay da ko daan fàggul doom. boo demee ci taarix dañu lay wax ba Cheikh Omar Foutiyou taal waaw ñëwee ñëwee Mbàkke. allahu akbar eh, teraanga ja ko soxna jaara defaloon. waaw nga xamante ne eh, da koo defaloon teraanga ju baree baree bari. waaw ba mu waxoon ko yam ko waxoon ak ñaan yi nga xam ne moom la ko ñaanaloon. jeex na loolu daa mel ne eh, maanaam daal wayjur daan na ko fàggul doomam. waaw hmm, daan na ko fàggul doomam. te itam. ñoom ñëpp ci mag ñi ku ci nekk. jaar nga ak nit ku baax foofu. dëgg la tàllal ko sa loxo ne ko doom ju baax la bëgg. dëgg la dëgg la. tegal li ci sa loxo. dëgg la looloo xewi nag wallaay wallaay wallaay ndeysaan dëgg la yal yàlla may barke taw amin amin ñëpp ñu ñuy déglu ci biir réew mi bitim wa shukran barke baax na lool mbay wallaay barke waaw moom kay kenn mos ko gisee macha Ibrahima Faye macha allah Ibrahima am na solo trop yàgg nga indi am solo waaye yee yee ci rawati waaw ndax xol yi directement mm-hmm. ndeysaan ndeysaan Boubacar mm-hmm. waaw oustaz Boubacar moo ci topp mm-hmm. Boubacar da ginnaaw ziar yi mu indi indi na benn laaj ak ñaari commentaire Euh, laaj bu njëkk bi man da ko delloo ci alxuraan suratu Mariam. Hmm. aaya cinq. Hmm. Euh, ba dix waaw. Hmm. ñu tàmbalee fi suñu borom di wax ni bismillahi rahmaani wa inni xiftul mamaaliya min waraa'i wa kaanat imratii aaqiran fahab lii min ladunka waliyyan yarithuni wa yarisu min aali yaquuba waj'alhu rabbi radiyyan ila aaxir jërëjëf laaj bi am na solo dafa am famille bu tudd Imran famille Imran Ali Imran Ali Imran am ñu baax ñu ca nekk ñu baax ñuñ ca nekk am ca ku ñuy wax Mariam bi mu juddoo ñépp nañoo koy yar dëkk penc ma mbokki yaayam yi ñépp na ñoo koy yar mbokki meer xànna <laughs> ba coow la bëree ayyukum yakfulu Mariam ñu ne kon nañ nañ ko tegoo bant ku sa bant génn ñét la ko nga yar ko loolu tam daraan am ci pénc mi loolu moo juróon yarloo léegi ni ko commercialiser mu far yàqu bi ñu tegoo bant Zakaria jël ko di ko yar nag Zakaria moomu nag moom la alquran di nett li fii zikru rahmat rabbika abdu Zakaria dégg nga Zakaria daf dafa yàgg ñaan doom Mbàkke ndeysaan wallaay bëgg a ngénti mënut a fexe ba ngénti nit ñu nekk fii ngéntewuñu xanaa di planning familial. Mm. pour bañ a amit doom. billaahi <laughs> te Sakariya moom bëgg doom ba. Sakariya bëgg doom. dégg naa coon sekaan ñu man a kootu amuñu mbaam. wax na mën na ko wax nga dëgg de wolof njaay ko wax. Mm. allahu akbar am ñu ko wut amuñu ko. yomb nekk ca roq ba di woote di ñaan yàlla ñaan gu suufe rabbi inni waxana al azmu nii yax yi amatul njëriñ. Mm. mënatumaa joxe ay ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ci mënatuma jox rek ay ndeysaan neel benn benn wastaal rachu sheyba mhm. ba jaaw naa waaw seet ba jaaw naa mhm. waaye nag walam akum bi duaayika rabbi shaqiya mhm. ba léegi sama yaakaar tasugul allahu akbar soo gisee ma lay ñaan doom nag wa inni xiftul mawaali min waraa yi mission bii ma yor ku ko ku ko donn ku dul doom xilaafa gi yàqu waaw seeta loolu <laughs> wa inni xiftul mawaaliya min waraayi bëgguma mawaaliya donn ma dama bëgg li may def nii xilaafa gi doom donn ko te nag wa kaanat imraati aaxira sama jabar ji musta gis baax dafa jaasir allahu dem naa ak moom Institut Pasteur. gisuñu dara. dem naa Grand Yoff gisuñu dara. dem naa université gisuñu dara. dem naa clinique sàngam lu ne def naa ko. ci kon suñu diggante moom bu fekkoon yaakaar lay tes mooy doo mënu fee am. dégg loolu. léegi nag téewul fa hab lii min ladunka waliya. wax na ko wax wax ko na fa bi ma leen ko wala wala daa. Mm-hmm. Mm-hmm. fa hablii min ladunka waliya waliya mm-hmm. ah loo koy doyee yarisu nii damaa bëgg mu donn ma mm-hmm. wa yarisu min ali yaqub la ali yaqub yoroon mu donnaale ko mm-hmm. doom jooju waj'alhu rabbi radiya allahu akbar mu daanal suñu borom ne ko am nga doom ah, waaw tey yaa Zakaria yaa Zakaria am nga doom parce que sa projet bi ñàkk ko financé erreur la waaw il faut waaw moo tax ko présenté projet bi am door a. gars yi góor waaw góor. parce que xoolal ni mu pro ni mu pro. waaw benn waaw maanaam ñaan gi muy ñaan. waaw ni mu mel ne noonu la xamalee boppam. waaw ki mu koy xamal xam ko. waaw waaw. <laughs> est ce que <laughs> bëcc projet bi. waaye oustaz li ci am solo dëgg mooy yaakaar ji mu am. waaw yaakaar parce que ku dem ba am lu ma téeméeri at. Mm. sa doon mag màggat. waaye nga gëm ne yàllaa ngi mayee ba léegi. mënatumaa joxe maanaam découragé wut daal. moo tax gis nga foofu. allahu akbar bu bu yàlla mayee doom. waaw kazalika yafalu lay wax. waaw. waaw hmm. yafalu ba tey noonu laa ko mënee. waaw ba muy may doom Mariama. waaw kazalika yaxluqu yaxluqu la wax. bii moom da koo def. bii moom da koo def. kenn mënul maa man maa ko <laughs> mu ngoog. billaay. léegi la ko def daal may na ko daal ko nag am nga doom kon. Hmm. yaa Zakariya. Hmm. inna nu bashiruka bi xulaam ndeysaan akbar danaa la may doom ismuhu yaxya dantité lay ëndaale <laughs> est-ce que est-ce que euh, lam yajal lahu min qablu lam najal lahu min qablu samiya amatul turandoo moo njëkk tudd yaxya est-ce que wa shukran ci laajëm bu am solo bi macha allah macha allah am na solo lool ndeysaan <laughs> maa ngi lay wax ni ñàkk yaa ñàkk maanaam courage bi nga xamante ne moom la moom la moom la Zakaria am mhm. dem na ba yëg ni moom mënatu joxe ay magee na yax yi làpp na amatul mais gëm na ni lii ma yor mhm. Mhm. kon yàlla may ma ko dëgg la sama jabar màggat na waaye nag def ko yow ndax yow mag ak gone ci yem. Mhm. ku la neex rek nga def la neex. Mhm. loolu tam am na sol de poussage. wallaay ndeysaan day dëgëral képp koo xam am nga projet wala nga am yaakaar bu kenn décourage ci sa borom. rek am ngeen buur bu bëri yërmande. Mhm. jërëjëf Angok. wallaay wallaay. Euh, ki ci bi maanaam deuxième laajam bi. waaw moom wax na ci wàllu euh, naka lañ naka lañ war a gëmee njiit. njiit daal dañ ko a gëm. waaye nee na bu ñu waxee lii bu sooy waxee nangam nangam daal indi na ci commentaire bu yaatu. waaw jërëjëf. xam nga gëm nit. nit a koy liggéey. waaye duñ ko jàngal nit ñi li leadership day incarner lim doon waaye duñ ne nit ñi doon leen lim doon alayhi salaatu salaam bañ ko tuddee al aminu ca màkk ndax dañoo reeñoo tuddee ko ko déedéet ndax dafa jox attaay war ga ñu tuddee ko ko rek rek tuddee ko Muhammad ñu tuddee ko teg ko ca al aminu mm-hmm. waaw loolu kon da koo incarner di ko dox ca penc ma. lu mu leen wax xar-xarub doj lay doon. Mhm. rek sallallahu mhm. allah. Mhm. ndax eh, kooku moom yàlla ni wa maa yantiqu eh, waaye ñun ñi nga xam ne dañu làmbatu di dem il faut ñun ñoo askan ñooy xam ni nit man ak nit mënul. képp ku leen bu dimanche ma taw. soo ko gëmee yow yaa yaa yaa dese. yow yaa matadi waaye yàlla moom rek moomu taw foofu taw war nañ fi bàyyi xel. incha allah waaw macha allah suñu bàkke wallaay am na solo de oustaz eh, jërëjëf jërëjëf oustaz ñu jaajëfal ko bu baax a baax Cheikh eh, Fall jaañ moo ci topp di wootee fële ca Espagne mhm. eh, Ibiza nee na oustaz ñaanal ku faatu dafa déggoon ñu ne buñ koy jullee waaw jullee ku faatu mhm. nee na kenn da ko wax ne ko duñ ci jàng alxuraan mhm. te itam yooyu yëpp amu ci maanaam mënees na ko cee bañ jàng daal waa ji mën naa taxaw rek bu ko neexee ñaanal ko ci olof wala làkk wu mu dégg mu jël yóbbu laaj na laaj bu am solo mm. bu am solo mm. Euh, xam nga lislaam li tubaab bi wax bërki démb doon ko tontu Macron mooy danga nga yàgg mer da yàgg mer Macron ndaxte lislaam ni muy def nit ku nite na ko ñëw naa loolu la ko tubaab ba wax mu ne xoolal ba ñuy wutal nit ki ndey ak di ko wutal bàyyi fa la lislaam tàmbaleeg moom mhm. bañ rob ko mu te koo bàyyi loolu ci la jullee néew bokk du ko génn àdduna ay mbokkam daje ñëpp ne ilimaan ñaanal ko ñu sang bam set sang ba mu baax sang ak mbàjj walla euh, ab sir tëral ci kanam imaam ne ko nag ñaanal ko loolu boroom xam-xam yi ko yonent bi yàlla yónni woon négligé ko moo tax ulama yi bi ñu indee arkaanu salaatil janaasa arkaan yooyu bañ ca noppee ñaari mës ab dañu ne dañ fay jàng faatiha ñaari mës ab ne dañuy ñaan rek dégg nga boo jëlee ponk bu njëkk bi mooy yéene jë kon day dugg loolu ñoom ñëpp ci d'accord ponkum ñaareel bi mooy kàbbar yi ñoom ñëpp ci d'accord mhm. ponkum ñetteel bi mooy ñaan gi mhm. ci ñu wóote nag waxtalafu fi mahallihi fu ñu koy def ndax ci tàmbali bi la ndax ci digg bi la ndax ci fin bi la mm-hmm. yaa ngi may topp de waaw mm-hmm. léegi ponk bi ci tege muy ponk ñetteel bi wala bu ñeenteel bi mm-hmm. mooy taxawaay bi ñuy taxaw ci ko am kàttanu taxaw pour julleeku ponk juróomeel bi nag sëñ Mbàkke mooy jàng ca faatiha boo demee ca achafiiya wala alxanabala waaye faatiha ji nag wenn saar du ca tege ba ma ci leen mas bi ni ñoom foofu du am alfatiha loolu rek mooy wute gi waaye nag duñ fa jàng dara nag ëpp naa def dëgg la duñ fa jàng dara hmm. naa def dëgg la ñenn ñe dañ fa def dañuy kàbbar def salaatul duwaawul istiftaa hmm. ñenn ña kàbbar jàng alfatiha rakkam ñaar bi salaatul ibrahima rakkam ñetteel bi ñaanal néew bi rakkam ñeenteel bi tàggu néew bi ñaanal ñu ko doon jullee hmm. ku ne yewi ko bëri na nag ay kayfiyaat yoo xam ne yu bare bëri la. Mhm. waaye boobu benn la ci. Mhm. man dinaa dégg sax léeg-léeg ñu naan ku mënul ñaan gi naan allahumma yaxfir lahu warhamu mhm. waaw ku mënul loolu def nga wax yàlla nag yàlla yéen tu jéggal ko. man xaw nañ ko yombalal nit ñi daal. waaw en tout cas ab jullit daal. day moytoo am doful imaan. doful imaan mooy yi lislaam di taxawee luñ sant rek. nga joxe ngànt. ndeysaan loolu baaxul. tey loolu baaxul. nañ dal jàng nañ dellu ci centre yi nañ dellu ci daara yi nañ dal jàng nañ jàng waaye doxal ñu julee nga naa ah, man am jukki nga naa ah, mankat kat rek baax na baax na kon jullee néew hmm. ñun ñëpp a ko war a jàng sang néew ak sang kook toppatoo ko denc ko mhm. nun ñëpp a ko war a jàng nga xam bu ñu koy def dañ koy def ci loo xam ne lii moom mhm. lu wér cëng la mhm. waaw macha allah macha am na solo oustaz donte ñu bëree bari sawaruñ ci <laughs> waaye li ñu ko waxee lu ñu war a jàng la ndax euh, léeg-léeg ñu indi kenn ca barab yi di ko waajal mu mel na nit ñi dañu am jafe-jafe sax kat moo ko war a waajal wala ñu woo kenn rek mu dem dugg ca biir ba mu yàgg mu génn ne noppi naa ñu jàppoo jël yóbbu te am na ci loo xam ne nit moo ko war a mën a taxawul mbokkam dëgg la mu ne daa war a taxawul loolu moroomam bu fi bàyyi ko alxanafi dañuy wax ne mm. inna awla nnaasi mm. mm. eh, bis salaati ala al janaza asxaabul wilayaati al aama bu ñu tegee néew bi tey ñu ne Oustaz Ahmed Dame Ndiaye doxal jiite ko ñëpp nees kay waaw xaaj ko ñëpp su fekkee noo nga moom ñu daaj ne moor xuja kaay rek moom def baax na dëgg la almaliki ñu ne xaqu shaxsin bi salaati ala almayiti allasi wassa bihi almayit ñu ne ki war a julli ni bi te ëpp ci sañ-sañ mooy kim woon bu génne àdduna na ko taxawee loolu la imaam loolu la wax mm, almaliki te loolu di ci am solo ndax néew bu kenn yilifut mm. rob ba fa dem jéppi ko. dëgg la waaw dëgg la. néew bu kenn yilifa. waaw. ndeysaan moo tax. am coow la coow la moo lay njëkk sonal. am kilifa baax na de. ak ah soo dëkkee ci koñ imaam xàmmewuloo imaam bi su yoon nekkul ci moom nekk sa bopp ba xëy wàccub liggéey say bokk demuñ ci imaam wax ko dara dénk ñu ko benn kàddu mu ñëw ci mbooloo mi rek en tant que imaam day jàpp njaamuram. <laughs> allahu akbar. Hmm? waaye boo ko ah kii kat lii la kii lii la kii lii la teg nañ ko ci sa loxo. ah kañ mu daw taxaw nag. bon volonté yi bari nañ toog. waaw Ashafii ñu ne. Hmm. anna awla shaxs bi salaati al mayit ñu bàyyi ci ëpp hmm. bàyyi néew bu fekkee ma loolu la Ashafii wax. alxanaabala jeexal ko ñu ne. anna al wasiya al adl huwa man lahu al wila awlawiya fi salaati al mayit daal di xaw a fekki imaamu Malik. tey macha allah est-ce que. waaw. jërëjëf. waaw am na solo jërëjëf jërëjëf oustaz loolu mooy laaju Boubacar gu jaam kon euh, euh, walla bokk hmm, Cheikh Fall Diagne euh, Touba Ibisa mhm. oustaz Alioune ki ci topp mooy Cheikh Tidiane Kayre waaw oustaz Cheikh Tidiane Kayre moo ci topp mhm. Cheikh de moom te xilaas lay laaj waaye xam naa baytam bi moom jotuma koon kii mhm. yaa rubba yow min yaa rubba yow man ke faahu loolu daal laa xam waaw kon dañ ko ko lebal rek. waaw bu ñu dellusee ñëwal ñu gëstu kooku. Mhm. waaw Alioune Fall nag Alioune su su suñu xarit. waaw duggoon na fi léegi doon ma jox béy bi mais dafa fekk booba ñoo ngi maa ngi ci antenne bi. Mhm. kon xam naa du ñàkk danaa ko danañ ko xoolaat pour buñ fi dellusiwaatee ñu. incha allah incha ñu ñu ñu loolu mënut a ñàkk ci masalay diine. waa mu ngoog. <laughs> loolu te mënut a ñàkk ci masalay diine. waaw jërëjëf rawat na nag téere mag ñi waaw macha allah oustaz Mouhamed Gueye moom tam Mbacke Mouhamed Gueye wakaam ñu ngi koy nuyu baax a baax oustaz nee na lan la ñuy jànge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loo xam ne moom la jàngale ci wàllu suul néew wala boog denc nit ñu baal ma ci baat bi noonu la ko waxe woon waaye ci denc ku faatu daal oustaz nee na lan lañ ciy jànge moom de bu nit nekkaan ci di sukuraat hmm. da koy walbati jubale tànk ya penku ba jëm sowu mu jaaxaan hmm. muy tudd ay baati seede ci wetam wala ña ko fa toogal bu ko tuddee ñëpp ne selaw daal di wut morso def ci suuf teg ci biir ba ndax li ci nekkoon génn fab loxo ya gaaw teg ca dë ca dënn ba balaa wow ndax su wooyee deetu ko ca mën a tegati moo tax ñu koy xaw a yeew takk ñaari tànk ya bu nu ca noppee yóbbu ca fa fa ñuy sange ñu sang ko ni ñuy sangoo jana ba nit a ko koy defal nag subbi ko subbi ko mooy ñu sange ko ndox ak saabu wala ndox ak sidéem ndax léeg-léeg ab malaat tëdd ay mbokkam sàggan ba mu def ay àq ci yaram bi léeg-léeg malaat tëdd ay mbokkam sàggan ba mu def ay àq ndax tilim looloo tax lislaam ne kon nañ ko subbi pour mm. bàyyi xel loolu mm. Mm. xubbi ko mooy ñu ñu defal ko ni ñuy defal kuy kuy bëgg a sangu ba raxas awra yi pour la ca nekk set léegi nag sang ko nag xam nga loolu kon ñetti ndox la waaw sang ko jiital fii teg fa lii teg fa lii teg fii ba mu àgg ci yàlla ñu bàyyi ko fa diir bu fekkee amuñu sarbet bu ñu amee ñu nàpp ko ba ndox ma set wecc ba nga xam ne buñ ko sàngee tooyaayu néew bi du tooyal morso bi ndax bu tooyalee ci rii day feeñ dëgg la buñ ko defee noonu ba noppi nag ba sàng ko daal di ñëw nag indil ko imaam mu jullee ko julli ga ñu daal di yenu ndànk dox ndànk dem fañ koy denc waxi mbax ba mu xóot denc ko ca ndànk ñaanal ko te ñibbi jërëjëf ci laaj mbaam solo bi ah jërëjëf oustaz oustaz nit a ñàkk solo ak mujj munu fee weesu waaw moom tiitar beeg dara jeeg yëpp foofu rek ñu foofu rek ay xubbeeg ñetti ndox ak fomp ak sarbet ak foofu rek te du ci defal boppam lenn waaw lii lépp aw nit a koy tiim di maa la ko wax maa la ko wax ah jaaxle naa sax loolu sax man sax gis loolu sa Mbàkke hmm. loolu sax xëy na peut daw moom jeex na ba pare mais hmm. gis nga kii tëdd ci hôpital hmm. desewul daara bët kese ak bopp kese waaw tiim ko ka daan romb di dëngi dëngi di ka romb ah. daan la romb tey mu tëdd nii mënul sax jeexal kaasu meew waaw waaw coy xamewul kenn mukk <laughs> wa shukran la wallaay <laughs> am na solo de jërëjëf oustaz <laughs> xam daal ku yebu ñemee ko rek waaw ah, ku yebu ñemee ko rek man bu ñu koy waxtaan oustaz affaire day metti soof ba nga Senghor dina d'accord ñi moon waaye la koy doon ragal ah, waaw daa ne mag ñi dañ koo ragal nag waaw Senghor moom nee na waaw nu gën a màggee rek gën koo ragal ndeysaan ndeysaan ndeysaan kenn bëggu ko kay wallaay c'est sama yaay de bu xale yi bëggee mu wax dëgg dañ ko naan da euh, ni nga ragale dee boo ko waxee rek bu mën la ku ko ñemee daal di tàng jër ah waaw kii maan la di waaye daal ñëxut a ñeme de ah xam dafa raglu lool yàlla nañ fa dajee ngërëmul borom amiin amiin amiin jëf Eh, Cissé Cissé bi Youssou Cissé <laughs> fële ci Castor bi ñu tooñ Oustaz Aline Mbaye nee na mu waxal Oustaz Mbaye ne ku ragal dee la bu ñuy wax dee day wonku rek <laughs> wonku rek di kii rek ah. ko wallaay ah loolu de dana ñàkk ci pexe rek waaye Sénégalais ki bu dee am dee pexe hmm. da nga ko am pexe moo xamante ne du fi jóg waaye bu fekkoon ku dëkk Mali doo dee hmm. ñun ñëppay paas dem Mali hmm. <laughs> kon Mali bari gànde de jërëjëf. ayca jërëjëf Mouhamed gi euh, yaat ma Mbodj moo ci topp oustaz. oustaz yaat ma nee na est-ce que ñun ñi di defi conférence. Mhm. Euh, warta ñoo joxi tem ñuy defi tem ndax euh, est-ce que ñëw jox loolu conférence loola rek nga ni la waxtaanal gënul woon yomb. waaw ñaari yëf la di. Hmm. buñ na la waxtaaneel diine. Hmm. duñ la jox tem. da ngay wëndeel rek da suñ ñëw sa xel nga wax ko. Hmm. waaye buñ na la conférence al nag conférence moom dañ la joxub tem. Mm-hmm. thème ba nag day aajowoo nga nga nga def ko defal ko plan mm-hmm. dañ maa waxtaan loo ci nangam mm-hmm. fii laa koy tàmbalee lii laa cay teg lii laa cay teg nii laay jeexale delloo leen kàddu gi loolooy conférence jeex na dina nag mooy da ngay wax rek lu sa xel lu ñëw sa xel mi nga wax ko su mën ngaa ñàkk yoru këyit mën ngaa mën a pañ préparer dara dëgg la waaye bu dee conférence moom conférencier mën naa yor ab ab ab ab ordinateur am. Mhm. def ci thème bi. wala mu yor aw kayit def ci thème bi su ko waxee ba nga xam ne jeexal na ko nag ñu posé question ci biir lim doon laaj. Mhm. ndax nit ñi dañ tënku ci comme daf ni woon. damay waxtaan ci lislaam ak ndaw ñi. Mhm. léegi nag lan mooy lislaam d'abord ñan ñooy ndaw ñi lan moo dig ndawe. yan étape la. dund nit di jaar. Mm-hmm. étape yooyu lan moo ci jàpp ci ndawe. Mm-hmm. ci loolu lay jaar. yan mébét mooy xaar ndaw ñi mm-hmm. nuñ war a taxawee nangam nangam et cetera mais léeg-léeg oustaz tam est-ce que thème yi ñu joxe duñ jox thème boo xam ne hors sujet la maanaam thème yoo xam ne dafa xew yi wala bañ dalee waxtaane diine ba léegi moom la ñuy wax ba pare thème yooyu itam ñu wéy di ko tànnaka tànnaat rek waaw su boobaa ki waxtaan mm. moo koy moo moo moo koy mise en jour kii waxtaan mm. moo koy mise en jour d'accord ba mu adopté bis bi. waaw moo koy indi. Mhm. la ko may dana te léegi ca ca ca kaw a kaw bu ko defee nit ñi téen rek ba mu jaxal. tey <laughs> jërëjëf ba tey yaat ma nee na nee na addu kalpe daal dafa baatu ko addu kalpe daal mu ne làkku jàmbur la. wax na dëgg de. te ñoo wut ni leneen. waaw wax na dëgg de. Mhm. ca kaw ga nag moo fa xewoon. Mhm. waaw ca kaw ga. addu kalpe fa xewoon ndax ki lay kar moo lay wax ne la addu kalpe. nga jox ko kalpe mu la raxasul. nga raxas mooy fuunal sa loxo yi mbaa xeeñul xaalis nga ne dina mu la demal ñibbi. Eh waaye li metti na di <laughs> ah àdduna yàgg naa li metti na di <laughs> dégg daa dégg njortal ma njuug. waaw ma njuug daa dugg ci yu fekk fa gaa àddu kalpe ñu nangu kalpe ba. duma ko ba mu sonn raxasuloo ko. Hmm. mu ñëw nag ñu ne ko waaw gisoo foofu ay gaay mu ne jort naa ne ñu ngi wi. moom njort lu wóor la. <laughs> njortal ma njuug ah loolu la du njort yaqin la. yaqin la <laughs> ma njuk di daa bañ a wax lépp rek. kay daal la ma njuk daal moo yeewu. ndeysaan mhm. mm, ku mooy taw kenn Cheikh moom dafa indi rek. Mhm. moom mooy suñu xarit boobu lay. Mhm. alxaaj Ousmane Ndiaye wakaam kii Fane moo fa nekk. ñu ngi koy di nuyu waa Fane yëpp di leen masawu. nee na oustaz dafa bëgg nga ñëwal ko ci taxawaayu nit koo xam ne daal dafa am kum jege. te faatule ko mel ne borom kër boo xam ne dafa ñàkk soxnaam. nee na am na seen benn xarit boo xam ne jamono ji mi ngi koy dund mu metti lool nga xamante ne daanaka mënut a liggéey ndax tàqali ko ak sagoom ndax mettit woowu mu ne lu mel noonu kum dal euh, yan kàddu nga koy wax xanaa defal ko delloosi ko xam ne yàlla moomoom jaam bi jël ko boo ko mu muñee muñ ko rafet mu baax ca jaam baax ci yow même doy yi mm-hmm. loolu rek la dafa métti nag lool. ndax daa ngeen dégg ma junoonu Layla looloo ko warlu. dëgg la keroog ba Layla fàttali maa ngi door a am jabar. Hmm. dem dëkk ca armeel ya. Hmm. waaw kon kii itam ànd bi moo rafetoon. woyu faatu gay way déggoon ngeen ko. wallaay ànd baa rafetoon. wallaay ndeysaan bàyyi ko amoon. Hmm, kon nag métti bii muy métti lu jooy yi muy jooy. Hmm. du affaire bi. déedéet bi mooy dellu si waat. Hmm. li muy métti métti. li hmm. ko ñaanal nag. ndax aleyhi salaam nee na. ab néew bu wanee ginnaaw bu dul jëkkër. bu dul ñetti fan jooy na ci jooy yi. bu dee jëkkër nag ñeenti weer ak fukki fan. mooy tëj gi. waaw <laughs> ni ñu def ne nga dégg ñu ne déy une semaine hmm. loolu daganul mais oustaz góor bu soxnaam faatoo fi ne bu gaawee takkaat dañ koy wax ne ko xanaa moom déegi sa fu ko de ah, dafi ne moom it day ténji la mu toog at ak nangam euh, ndeysaan loolu la parce que ñun suñu aada mooy mooy mooy mooy rëngërëngee penc mi hmm. suñu aada xawul xawul nuru mooy rëngërëngee suñu penc xawul nuru <laughs> ndax sa jabar dee rek daay daay takkaat waaw saabay daf ci am koo xam ne ki dafa amoon takkaat du ñëwaat dafa amoon aaw ak ñaareel hmm. dégg nga. Hmm. bu ñëw jël aawa ba. teel ak sa mu jël ñaareel ba. ah moom mu dugg ko. mu ne na gaa yi takkal leen ma jabar. ñu ne ah. kii yi gondoo damaa bañ a dajeeg sa su uh, damaa bañ a dajeeg sunu borom. nekk ko amul jabar. ndeysaan kon xam naa moom nag li muy doyee jabar ak ñun li ñu koy doyee bokk. waaw kay. Mm-hmm. donc looloo yëf yi. Mm-hmm. kon nag léegi sa jabar faas noonu takkaat nga keneen. Hmm. wax dëgg yàlla mu ko la ci yedd. Hmm. Euh, ma ngay wàcc yoon wa. dëgg la mooy sukkuraan. ah. kiimaan la oustaz <laughs> am na solo de. dëgg dëgg ay ka ku ci topp. Euh, Souleymane moo ci topp oustaz. Hmm. Souleymane bi mi ngi woote fële ci Côte d'Ivoire moom. moom Côte d'Ivoire la woote waaye indiwul santam. nee na nag moom déglu fa baax. day demee wolof waaye li mu wax nii leer na. macha allah waaw mu ni moom dafay jaay commerçant la euh, day jaay. yore boutique mbaa magasin. waaye day yor njàpp. day mm-hmm. bëgg di yor njàpp di jaay. Mm-hmm. mais ci njàpp mi dafa am ay clients yu jënd si yoo xamante ni seen xaalis xaalisu sàngara la day xëeñ sàngara mm-hmm. léegi ndax moom nan la war a jëflante moom ñoom waaw nangu xaalis bu xëeñ sàngara mm. aramut mm. moom bu xe sàngara gi yàqul njàpp li mm. déedéet ci xaalis bi la nekk xaalis yi fi nekk nii fu ne la xaalis jaar dooruñu suñu loxo loxo bu ne jaar na fa moo tax ñiy lëg def ci xaalis ñuy def bu ñu àggee kër ga raxas ba set wecc ndax fi xaalis yi jaar ba agsi ci seen loxo wallaay ndeysaan kon xaalis bi fi jaar ba ñëw ci seen loxo yi xeeñ na sàngara xeeñ na alcool dencal ci bi xaalis yi rek léegi tey ay mbokkam walla ko xet bu mu jeex tàkk <laughs> wallaay ndeysaan xaalis seexlawul mooy ci laaj ba solo bi jërëjëf Souleymane euh, Côte d'Ivoire Mbacke sama yaay ci topp mu soxna Nene Diouf. <laughs> ndeysaan ñu koy nuyu baax baax Diouf eh, tey rafet lu duggam bu am solo boobu oustaz nee na daal koo xam ne dafa faatu eh, waaye dafa dafa mm, maanaam ñi fi bàyyi. Ah. xam naa ci ay mbokkam dañoo bariwut waaye am na fi koo xam ne yaay rek la bokk ak moom ak koo xam ne bàyyi rek la bokk ak moom. Ah. mu ne buñ koy miraas ñaar ñooñu kan moo ko ci war a donn daa bokk kenn. daa bokk kenn ndey rek. ndey rek kenn bàyyi rek. bokk kenn bàyyi rek. waaw. waaw. Mhm. kon su boobaa ki bokk ak moom baay. Hmm. ak ki bokk ak moom ndey. Hmm. ki bokk ak moom ndey cërub ndey lay jël ki bokk ak moom baay jël cërub baay. Hmm. même bu fekkee ki bokk ak moom baay jigéen la. waaw axun wala uxtun. mutlaxan. waaw comme ci man di doon. li muy def mooy un sixième lay jël. mooy cërub ndey. comme bu doon yaay bu doon yaay bu doon yaayee li muy jël. loolu lay jël moom lay jël moom lay jël. léegi nag la ca des. ku góor kee kee bokk ak moom bàyyi. Mhm. moom mooy jël la ca des. waaw mhm. ah, kon kon mbokkum bàyyi gën a taxaw. waaw. déedéet mbokkum bàyyi day taxawi góor même bu dee jigéen la. bu dee jigéen la genn wàll bi genn genn wàll lay jël. Mhm. bu dee jigéen. genn wàll genn wàll lay jël. bu dee bàyyi. bu dee bu dee nag ku góor la moom la des lépp lay jël. tey. sa mirage moom it <laughs> daa bëri ruq. waaw walaay nii sax dafa bëri ruq de. waaw kii fas yàgg naa Mbacke loolu moo doon. mooy loolu moo nekk ab laajam. Euh, beneen bi ci teg itam nee na oustaz dañoo am xëy na barab boo xamante ne dañ ko bëgg a miiraas wala alal joo xam ne dañ ko bëgg a miiraas. Mhm. Euh, nee na nag ci biir famille bi daal daa mel ne sawaruñ ci miiraas mi. Mhm. donte moom nag bëgg nañu miiraas ko lool. ku mhm. <laughs> mu ku mu tudd ku mu tudd miiraas rek nga nga nga bañ. waaw doo doo sawar. waaw waaw. loolu ñoom moom de li ko war def na ko waaw moom ku jigéen gi. waaw mooy kaay ñu miraas. gàntul nañ ko miraas ma. ah su boobaa nag ñoom ña gàntu miraas ma ñoom lay topp. léegi alal ji bu fekkee day génnee dara. te te maanaam bu fekkee alal ju ñu luyee la mbaa bu dee kër la wala loo xam ne lu ñu luyee. waaw mbaa loo xam ne day am valeur ci kanam bu dee ay terrain wala ay kër yoo xam ne day am terrain. day am valeur ci kanam. Mhm. donc te yow rek yaa fi nekk jigéen ju bëgg a miraas ñi des nangoo ñoo miraas. Mhm. léegi euh, évolution boobu noo nooy defee moom. ah loolu évolution boobu laa moom dafa parewutoon pour évolution bi am. Hmm. moo tax du ko wutal solution. kon bàkkaar bi moom ñële la waaye. waaw moom du ko wutal comme moom waxutoon ne lii rek. moo tax du ko wutal solution. ndax du ñëw fii tere la njo wékk njoowaan ba noppi naan la soo joowoo nag. <laughs> bul jëm boor bi <laughs> dina ko xanaa même ba pare ngaa xaw xam nga xam waaw mais euh, léegi miraas moo xamante ni daal ñaare. képp ku soññee menace bi rek boo moytu nga wàccub liggéey. waaw <laughs> loolu loolu est que tam. <laughs> waaw loolu léeg-léeg nit ñi def ci mbirum njabar. Hmm. mbirum yàq njabar. léeg-léeg nit ñi def ko ci. Hmm. Euh, yàq yi fii ba nga xam ne ku ca wax mën naa am ay jinn topp la wala ay rab ak ñoom seen yooyu léeg-léeg mu am hmm. léeg-léeg mu am. kon dañuy activer dañuy activer dañuy activer ay rab. waaye nag waaw waaye nag nga xam ne ñoo ko def. sunu borom ne na yowmal am buñ fa yaakaar ndékki waxuma laa añ ak reer laa xalaa lahum fi l axira allahu akbar buñ fa yaakaar mukk ndékki te it ki def loolu bés ngi ñëw ñu miras ko am de te wóor mën ngaa waat fii nga toog ne du du du du fekke l'an deux mille deux mën nga ko waat <laughs> hal ataa ala al insani xiinu min ad-dahr wallaay ndeysaan lam yakun shay madkura jàng jëf sara waa jeex jërëjëf looy indi suba cëgee incha allah maa ngi ci yonent bi sallallahu taala wa sallam nu muy màggee ku ko nàmpal ak ñu mu doon nàmpandool foofu lañ toll incha allah bu vingt deux heures trente jotee dinaa ànd ak alxaj sa xarit bi sa soppe waaw ndeysaan incha ñëw na ci alminbar nuyu naa ko baax a baax oustaz maak looy indi jërëjëf oustaz boo noppee ci tafsiru quranul karim bi dinaa ànd ak waa daar ji ci xamtu jërëjëf man maa ngi ci suratu daariyaat ndeysaan maa ngi ci aaya 38 sunu baam ne nag wa fii Moussa. ndeysaan tey mooy sama troisième parti ci wa fii Moussa. Mhm. mooy Moussa àgg na Madiana. Mhm. ma ngay wax ak jànq ja hmm. ndeysaan ah, ma nga ca teen ba ma nga ca teen ba est-ce que macha allah waaw jàngale mu rëy foofu foofu la ñu war a ñëw tey bu soobee suñu borom incha allah yàlla na yàlla boole sàmm amiin kon lu jub ci wax ji hmm. suñu borom waaw kay du ñun waaw lu ci dëng nag nuna du moom nuna <laughs> ñoo doon jéem a wuuti fii borom xam-xam yi pour tooge jataay bi waaw ñun ñu ànd ñu <laughs> ngi ñu ñu ngi i rajo ah xaaral ma wàcc seeti. rajo laa leen dégg. <laughs> jërë ngeen jëm <laughs> kon mbokk yi bi leen toxal seen ak déglu ca kanam tuuti li ciy teg ci programme tege ci incha allah ba baa guddi nun ko Oustaz Alioune bay waxee wala ci kanam tuuti ci tafsir beeg lu tege euh, euh, seen jotaay bii di euh, xamtu ci Serigne Mbacké Sylla yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen ar nu ar leen yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.